toutes les gens. pour l'économie du temps sëñ Saliou s'il vous plaît monsieur le ministre s'il vous plaît. alors euh, ñu ñu jàll lii c'était juste une petite parenthèse boo xamante ku nekk dafa amoon euh, une moins d'une minute pour donner son avis par rapport à cela euh, mujjee nañ ko soppi débat alors que c'était pas le dañuy dem ci deuxième sujet muy on l'avait dit l'actualité de la semaine quand même marqué woon Idrissa Seck marqué woon na ko ak sortie bi mu def ñaari sortie yi mu def premier bi gis naa ngeen ko doon tooñ naan jotaayu koor woon ci bi peut-être euh, démission en tout cas ci nombal tànk bi ko dénkoon ak euh, lii di coalition Benno Bokk Yaakaar génn gim fa génn ñu bëri jàpp ne que peut-être euh, xamuñu sax naka lañ koy analyser peut-être ñii ne deal ñii ne leneen la dañuy jox suñu invité yi ñoom it ñu joxe si seen seen avis par rapport à cela ak pois bu mu mën a indi ci ci opposition bi mais là tout le long on va aller regarder suivre une petite vidéo une vidéo de Bougane Gueye Dany qui buy wax ci waxu Idrissa Seck également également par rapport ak déclaration mi avant de revenir euh, sur le plateau bu fekkee c'est bon avec la la régie sinon on fait juste euh, tour des invités alors euh, peut-être euh, mu ngi en téléchargement on va on va y venir euh, ma ma ma ma ma ñëw ci honorable honorable ñu gis mu def actualité Seck bu demoon ak président la République ànd ak moom pour l'intérêt du Sénégal après le Covid-19 mm. ñu gis ko nii mu génn ne léegi ci opposition bay réclamer wu sax chef de de mm-hmm. l'opposition tout de suite on va on ban lecture la ñuy mën a jàpp ci loolu

euh, la liste waar wi. Mhm. je pense que beaucoup de nos de nos de nos de nos responsables n'étaient pas sawaruñu woon ci jàppale président Idrissa Seck ñu campagne campagne bu métti une campagne on avait très peu de moyens et on l'a accompagné sincèrement pour mu def résultat résultat bi mu def. bi mu génnee ne day rejoindre le président Macky Sall on n'était pas du tout d'accord avec arguments parce que gisuma woon ban rôle. ban ban ban effet le le le le fait que mu rejoigne le président Macky Sall mu impacte dans la vie du pays de tous les jours et nous on était conscients depuis le départ même si on a. Mm-hmm. alors on va juste. Euh, on va juste voir cette vidéo. après ñu ñëwaat jox la nga nga nga koy xëccoo ku ko ak moom ku koy xëccoo day jël moom moo tal problème mu chef de l'opposition na jël ñun li ñu taal mooy jëli fi Macky Sall te jàpp nañ ne moom Idrissa Seck ak Macky Sall kiif kiif parce que ñun ñi bokkoon ci ñi ko jàppale en 2019. kon da nga jàpp ne deal la quoi. non mais non man du ma wax waxi deal xam nga Idrissa Seck dafa am problème moral avec les Sénégalais en tout cas ñun ñi nga xam ne dañ ko doon jàppale dañu taxawoon bàyyi suñu lépp taxaw jàppale ko. pour deuxième euh, en 2019 malheureusement <laughs> tout le monde a vu moom moo ne depuis 15 mois moom Macky Sall ñu ngi doon wax waaw léegi moom mu delluwaat ñëw jàkkaarloog sénégal yi naan sénégal yi ne sont pas dignes de confiance dama ragal ne dafa juum fii ki dignul de confiance mooy ki nga nekk jàppale ko pendant 15 mois muy waxtaan ci suuf di diir ci sa ginnaaw te waxu la ko kan moo digne kan moo dignul de confiance dama yaakaar ne Idrissa Seck dafa nekk dans son monde <laughs> kon ñun ñu fi nekk di wax ay waxu chef de l'opposition nangam nangam moom mooy xëccoo chef de l'opposition ku mu koy xëccoo kenn xëccoo kaak moom fii nit ñi leneen moo leen intéressé mooy jëli fi Macky Sall du affaire statut chef de l'opposition ngi noonu mu di euh, cette sortie euh, de Bougane Gueye qui rejoint un peu li nga doon wax justement par rapport ak confiance euh, bi ngeen amoon peut-être ci ci ci Idrissa mm, bon moom mu ngi de confiance. je comprends très exactement déggu lu mu wax mais je comprends très exactement parce que campagne 2019 dafa campagne bu spéciale. Mm. campagne boo xam ne campagne dans la campagne. ñun les supports de communication qu'on a reçu par Mblanka c'est c'est c'est Khalifa depuis la prison mm-hmm. moo ko moo ko jënd tu te dis avec quoi il voulait être candidat est-ce qu'il voulait être était même candidat mm-hmm. donc après au vu des résultats après ak choix politique yi mu def ñun aujourd'hui tey bu génnee ne il a encore rejoint l'opposition pour nous man damay le tribunal du politique c'est l'électeur c'est pas à nous de juger Idrissa Seck au bout du par les Sénégalais mais les actes qu'il nous nous intéressent pas parce que ñun a eu une démarche depuis longtemps avec Yewwi Askan et on continue sur cette trajectoire là mais je suis totalement d'accord avec le président Bougane que le problème de Idy c'est pas avec la classe politique c'est pas son positionnement son problème alliance que représente Idi aujourd'hui au sein de l'opposition je pense que man acteur politique là je suis allé plusieurs fois à des élections et et et j'ai la chance aujourd'hui nekk dugg yor un mandat parlementaire et génn di wax ak sénégalais yi loolu laay wax bi ma génnee ci premier marathon budgétaire bi dañuy wax ni je suis très surpris par ni sénégalais yi accroché au seen institution di ko suivre bi ma génnee ci élection yi j'ai fait des élections locales en tant que candidat quelques mois après j'ai fait des élections en tant que candidat à des élections législatives je croise des Sénégalais qui me disent écoute moi je n'ai pas voté pour toi ci législative pour telle raison parce que je considère que kii c'est le beau-frère du président c'est ministre d'État il peut apporter plus que toi tu ne pouvais apporter en tant que maire par contre je suis convaincu que tu ferais le, bon député de Saint-Louis il n'y a pas meilleur électeur il n'y a pas plus éveillé que les Sénégalais. Il n'y a pas Sénégalais plus compréhensif que les Sénégalais. Donc, je ne pense pas que ce soit intéressant pour quelqu'un, avant d'aller à des élections, d'insulter les Sénégalais ou de penser qu'ils ont un mauvais jugement. Les Sénégalais suivent les acteurs politiques. ku nekk daañu la xool ràññee la la dugal wax te kay kenn mënu fi manipuler kenn. ay paresse c'est la Bougane que ça soit Khalifa que ça soit Sonko mu dem il a rallié Macky hmm. et à chaque fois il y va en décrescendo. avec tout ce que Wade a fait pour lui pour lui tey gis ngeen fu mu mujjee ak Ablaye Wade am na yoo xamante ni ñun ñëpp rus nañ ko wax ki nga xamante ne tey li ñu doon gannaaw yàlla yonante bi moom la. muy Abdoulaye Wade l'a poignardé il mu xëy suba il est allé avec Abdoulaye Wade mu ñëwaat dans l'opposition avec Macky Sall et tant d'autres ñu defandoo campagne bi mu jeex fii la yem parce que mu amul woon fu mu dem mu yem place de l'indépendance foo la dem ba campagne bi jeex cette fois-ci la ne léegi dootuma yemati place de l'indépendance dinaa fi jóge wër dëkk bi c'est-à-dire aujourd'hui ce que Bougane a dit c'est la réalité il il a des problèmes avec les Sénégalais. Parce que ce jeu de yo-yo-yo, il faut que ça cesse dans ce pays. C'est fini, loolu. nit ñi nekkatuñu si logique bi da ngay am gëm-gëm même bu fekkoon li ngay def li ngay def pour yow kese la sax mais na nga gëm li ngay def mais Idi. mais mais gëm lu muy def. dafa gëmul dara. mais non. Euh, gëmul dara te mënuñu naax. gëm li muy def moom non amul gëmul li muy def parce que parce que il savait en âme et conscience que Macky Sall day demander troisième mandat. troisième candidature xam na ko. non ah, loolu leeragul kenn. noo xam na ko amul leeragum kenn xam na ko tey bu ñëwee taxaw ne man a moom non bokk mëntuñu ànd parce que troisième candidature il va passer tout son temps durant la campagne élection 2024 pour dire que oui Macky Sall waru am troisième candidat am candidature et pourtant partout day wax ne Macky Sall il a un bilan positif. Mm-hmm. waaw mm -hmm. ouais, quelqu'un qui a un bilan positif yow bu ñëwee looy wax. qu'est-ce que tu vas dire maintenant durant les élections looy wax Macky Sall moo def lii kaay leen votel ma parce que Macky Sall tabax na lii da kaay votel ma parce que Macky Sall def leen ni voté leen Idrissa Seck loolu il faut pas être contradictoire il n'aura même pas 5 pour cent de l'électorat sénégalais. 5 pour cent c'est beaucoup. c'est beaucoup <laughs> sax bëri na du ko am. c'est beaucoup. parce que réew mi tollootuñu si logique bii da am looy gëm ànd si gëmoo ko ñi ñu nekk si leneen. yéen a ngi def météo politique na non dafa ñu météo. si. non defuñu météo gis nga gis nga gis nga élection yi passé 2019 ñëpp c' est parce que dañu xam ne la voie logique c' était d' être avec Idriss Seck ñun ñëpp ñu ñëpp ñoo xam nañu ko. Mm. dañ ne ah as la yéewoon nag bu ñu xoolee parmi les candidats qui sont dans l' opposition dëgg dëgg dëgg dëgg objectivement il faut être avec Idriss Seck. et la été. te ñu d' accord ñu woon de. te ñu bari dañ naan noo wóorul mais dañu ànd ak moom logique. Mm-hmm. ñu ànd ak moom dem élection mais tey vous avez vu ce qui s'est passé te nen nañu bëgg ñi ñu xam benn affaire gis nga force dissidente d'un système yooyu génn nañu xam loolu tey être dans un système pendant des années nga xëy suba génn fragiliser système bi dem ñi ñu ànd ak yow yooyu génn ça n'existe Autant c'était avec Djiboka, autant avec Moussa Pagnas, autant aujourd'hui avec Idriss Seck, demain aujourd'hui c'est avec Macky Sall, aujourd'hui il est devenu président. Keneen ku ko fi defaat tu seras comme Mimi Touré. Elle n'a même pas quatre voix. parce que Sénégal yi dootuñu ko nangu boo ànd ak nit ba tollu fenn fi dana ànd ak moom continuer boo ko mënul nga dem sa mais doo ba à quelques mois des élections nga xëy suba ñëw taxaw woon ñi Sénégalais yi leen man mi kat lii ak lii ak na yow tu es vert tu yooyu c'est fini c'est si beneen logique. mais il dit très franchement tey jii tey jii sénégalais yi perception bi ñu am. dans le grande majorité mooy il est au safak huit de sa vie politique. il est au safak huit mais mais loolu